asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 4 juillet 2019 ñu ñëw ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag jàppal tey sunu làmb lan koy doore waaye tamit fii nga xam ne nii di moo di record tamit ñëw na tey ci làmb ji waaye sunu làmb moom fa la njëkk yëglekaay ba nag tey dafa xëy ñëw di wax ak Boy Niang yëglekaay bi nee na day am na ñetti mbir yoo xam ne nii day mooy yoo xam ne ay défi yoo xam ne daal booy Niang mu ngi koy xaar ci digganteem ak ki nga xam ne moo di lag de Guiers 2 sunu làmb ñu ne ko ban ak ban mu ne ba ca njëkk mooy jéem a seet nu muy def daal ngir nag daan kii nga xam ne nii mooy VIP bu njëkk maanaam muy bari ak moom ci làmb mu ne loolu benn la ci li koy xaar leneen la ci des muy ñaareel bi ci li koy xaar mooy lii nga xam ne nii moo di cible bi ñu wax ne moom la cible muy Balla Gaye 2 ngir mu jot ca ne loolu tamit li ko koy may mooy mu daan muy ñaareel bi ñetteel ba nag maanaam daal yëglikaay bi ne na la mu nekk géejawaay maanaam la mu fay def ci ay ndam yu bëri yu mu fay am mu continuer di ko am kon loolu mooy défi yoo xam ne ni day mu ngi xaar kii nga xam ne ni moo di booy Niang ci combat bi war a dox ci diggantee mag Lac de Guiers 2 làmb xëy tey ñëw dina ko wax leneen loo xam ne yëglekaay bi ñëw na ci ba tey ci Boy Niang de teneen am na sax Boy Niang loo xam ne ni day xamee su ko ci Lac de Guiers te lu am la mois de juillet moom monsieur su ko cee daan kon nag Boy Niang loolu day war na cee bàyyi xel de war na koo suurale bu baax a baax Lac daal weeru juillet moom mësu cee daanu sunu làmb xëy tey dina ko wax waaye mënaat seeram ci Burxaan Waat moom mu ngay wax ne na gars yi dañuy wax daal di jaxase ay xel maanaam di intoxiqué nee nag li leer ba leer daal waxuñu kenn ñun Balla Gaye 2 moo ne ci sunu am xel xaan Burxaan Wàdd xëy tey di wax loola yëglikaay bi di sunu làmb xëy dina ko wax keneen koo xam ne moom sunu làmb ñëw na ci moom muy Lamine Samba mu ngay ñëw ci diggante Eumeu seen ak Modou Lo moom day nee am na lu mu cay ragal de parce que nag li mu gis bërki dem TFM daal moo tax daal mu jàpp ne moom combat bi moom nañ ci bàyyi xel ndax daal combat boo xam ne teel naa am te la ca des pareetul waaye moom Lamine ba tey nag suñ làmba mu ñu koy wax rek Lamine a ngi yëgle daal kani moom day waa Thiès ñay def maalaw door daal dañ koo tabb nag mu nekk meilleur reporter ren ci 2019 bii nga xam ne ci lanu ne sunu làmb xëy tey ñëw di ñu ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci muy loo xam ne day ay lamb la yu war a am beneen bi nga xam ne ni yëglikaay wax nañu ko mooy combat bu nar a méttee métti ci diggante qualifié numéro 2 ak naan di fal war a am samedi te sàmbay jaar fa yëglikaay bi ne na li leer ba leer day ñaar ñii moom nañu moytu parce que nag ku ci ne yaa ngi ci ñaar defeet yu teglantoo nañu moytu mu ñett de te nag ñoom ñaaray bëri te faw am ku daanu njaaytin moom rakki tafaatin jamono yooyu ñuy wax loolu moom Birahim Senior lay bëreel yëglikaay bi nag ñëw na tey ci analyse su ba mu xëy di ci wax kenn koo xam ne tamit yëglikaay bi xëy na ñëw tey ci moom muy kii nga xam ne nii day moom moo di baaba Babacar Diop moom itam day ca Thiès la dëkk daal waaye yëglikaay bi xëy na tey dalal ko muy wax waaye leneen loo xam ne tamit wala beneen yëglikaay boo xam ne dañ cay dem muy ñii nga xam ne ñii day ñoo di waa record record nag tey gan gu mag la xëy am muy tafaatin tafaatin nag xëy na ñëw waxtaan ak yëglikaay bi ba ne xaaw li ko teree bëre wax na ci nee na sama combat ak Ama Baldé day Pape Abdou doxoon na ko ba ñu juboo waaw waaye leneen loo xam ne tamit wax na ko nee na tamit keneen koo xam ne doxoon na ko mbaam moo di Pape Thialis Faye bañ déggoo ci kaddu ba mu jox ko bés daal ne ko avancé day génn waaye neen ca booba nag la ko mu a dégg tafaa nag nee na la mbir moom moom naqari na ko ba yegg ci lool ndax nag ne nit ki moom bu ngeen toogee ngeen wax yéen ñaar ba tënk seeni wax day nee na bu fekkente ne wax ji daa nar a tekke ko itam wool borom sax nga ne ko a tax ak nangam amatul loolu mooy ay waxam ay adversaire am tamit ñëw na ci ne diggante ma ak Gris Bordeaux wala muy Bombardier ku mu ci mën a doon ba ci Balla Gaye del tafaane na day jàpp na ne moom bàyyiwul kenn daal ku ñëw day bëre ak yow defet ba xam ne nii nag amoon na ko ca Balla Gaye de ñëw na ci moom jàpp na daal loo ci mën a dégg moom du tilimal defet ab jàmbur victoire ab jàmbur waaye daal moom lamb ja moom yéeme woon na lool ci moom waaw ndax fañ ko jaar fépp moom moo doy waar waaye nag jàpp na dafa waroon a daanu daanu ñu ne ko waa xale bi nekk ci lamb ju te di ko lëmbe yi loo xam ci moom rëg rëg sa combat ak moom ba tey ci record dafa tin ne li leer ba leer daal man moom pourquoi pas bëri ak rëg lu tax bëri ak moom ne la bëri ak moom dara nekku ci moom daal jàpp na ne dara bu ñu waree bëri itam bu ñëwee dañuy bëree dong moom dafa tin daal loolu la xëy tey di ko wax ci yëglikaay bi nga xam ne nii day moom moo di record waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay dem ci yëglikaay yi nga xam ne nii day jàppal moo di leewtoo net ñu ka ko tëgg nag tournée Fallou Ndiaye ba war a am le 27 ci arène nationale combat ba nag drapeau ba nag ñu koy xëccoo ñii lay doon ngeer bu sab ak ki nga xam ne nii mooy Franc bu parcelle yëglikaay boobu moo ñëw di ñu yëgal lu mel noonu waaye keneen beneen xale boo xam ne day sunu lamb daa xëy ñëw ci moom tudde ko étoile montante de Fatick maanaam diw biddiw bu fekk la di jóg jëm ca kaw muy kii nga xam ne ni day moo di ngóor ñaax yëglikaay bi ñëw na ci moom seq ak moom waxtaan mu mel ni kii daal tey li leer ba leer yëglikaay yi loolu lañ fi indi woon waaye da gaa yi ku aayewal sa moome Moussa Diaw wala ma ne Abdourahmane Diaw taalibe seex bi boroom asalem borom ADN moom la ñu tudde drapeau ka ko def moo di kanji dugal ko ci làmb fàllu njaay ja kon dama ne waa Leewtoo waaj leen suñu kilifa ay jaw mën a sañse jaw mën a joxe xaalis kenn du jaw jaw mën ñëpp maa wax lii maaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme chaque jour ni ñu koy ànd ak yéen rek ci revue de l'arène ginnaaw Babacar jafee revue ba pare ñun ñëw ci li nga xam ne mooy jàngat bi ma di ko nuyu bu baax Babacar nuyu naa la. Aïssa Faye madame Niang wala boog waa noonu la de madame Niang kañ Serigne Moussa Niang nuyu naa la yow tamit Faye la di nuyu internet yi suivre Leewtoo TV yëpp ah waaw. waaw euh, ñu dugg si li nga xam ne mooy waxtaan bi ak euh, combat yi ñëw si mois de juillet bi ginnaaw bi suñu làmb ñëwee ci li nga liy xaar kii di la degeer ñëw tamit ci li nga xam ne ni mooy xaar combat euh, kii Boy Niang ci combat bi mooy défi yi waaw dugg fa dugg géejawaay continuer la mu fa daan def gagné VIP dugg fi li nga xam ne ni mooy cercle VIP loolu yëpp muy ay ak Balla Gaye 2 bi nga xam ne ñëpp jiñ nañ ni moom la bëgg dem bëre si bu paree si la degeer mooy ñetti mbir yu koy nekk ba ca njëkk mooy premier combat ak VIP mu réussir ko waaw loolu ba tey dañ naan ci moom la des ak ca mu ko seqal ndax li tax mooy Lac de Guiers mën nañ ne kon mooy VIP bu nar njëkk a bëreel loolu bu dee da koo daan défi bi muy relevé lay doon muy luy njëkk ci moom ndax dina ko daan foofu la affaire bi ne waaw lool loolu nag la tëres lay leer yàlla nañ ko fekk taal ko bi ci des mooy maanaam ndax Balla Gaye 2 bi ñu koy jiñ ne moom la bëgg a daaneel wala moom la bëgg a jëli li ko koy may mooy mu jàll fii ndax loolu ne ci xelam man dama naan bu ko neexee am na ci droit parce que Balla Gaye 2 defe naa amul kuy takk ngemb tey te bëggoo bëre ak moom ba pare bëggoo koo daan yaa ngi dégg ndax dafa am ñoom fi fekkoon moom Balla Gaye xelam nekkoon ci ñoom mu daan Tapha Gueye daan Baboy daan Tyson mi mu ne woon idolam la daan Yékini te bi muy ñëw dafa newoon xale bëggoon amoon envie boobu ba yàlla def mu atteindre ko loolu amoon itam mooy amaat rek Boy Niang ak Ama Baldé ak Sa Thiès ak Siteu ak Rëg-Rëg ñoom ñëpp a ci yem ku ci ne tey sa bët ku ko wax ak ku ko waxuta fi ne ku ci ne rek tey bëgg nga bëreeg Balla Gaye 2 daan ko bëgg ngaa daan Lac de Guiers 2 ndax Boy na Lac de Guiers 2 bëgg ngaa daan Gris Bordeaux bëgg ngaa daan Bombardier parce ñoom ñoo newu ci ci sommet lamb ji bëgg ngaa daan Eumeu bëgg ngaa daan Modou Lo loolu moom lu am la ndax nag day continuer nekk woon loolu itam ba tey li ma la wax rek le treize lay leer waaye loolu lépp ci diggante ma kam ko séqal la ndax fi mu ne loolu balaa balaa mën a leer rek arbitre daa génn seen diggante waaw te kam koy séqal Géejawaay la dëkk kon nañ yónni yàgg rek comme ni ma koy faral di waxee mais ci benn point bi tam ki nga xam ne mooy manager di Père Bourkhane Wade moom tamit euh, génn daal di ne ni loolu ay intox la lu nit ñi di wax la rek pour def si xelu nit ñi ko moom daa am kii parce que nee na mun na daan la dageer sax te du bëreek euh, ki nga xam ne ni mooy Balla Gaye waaw mais bu daanee Lac de nag yaakaar naa ne xaw ma kuy daan yàlla xam bu dee dafa daan ah bu keroogee nag ndax ndax mën na bëree keneen loola moom yaakaar naa ne ci côté làmb bu fekkee dañuy wax rek ci làmb te réalité làmb tax ñuy wax yaakaar naa su keroogee liy neex tey neex askan wi mooy digganteem ak Balla Gaye 2 burxaan nag manaat la am na droit comme làmb ma lay wax rek mën nañ la seen tuggóos nga jaadu droit mais li leer ba leer moom làmb ji ni ni muy doxee boo xoolee composition bi tey ak ni ko amateur yi tuddee nit ñi lu ñuy wax rek xamal ne am na lu ca ne bu tey bu dee dafa daan loolu amee su ci ma ne su ko saaf naar Balla gay dee fay nekk ko keneen ko fay nekk bu fekkee dañ ko daan itam bu keroogee day dellu place am yëpp wëri leneen yaa ngi dégg mais fi mu nekk nii burxaan moom loolu moom bu mu ko sax père suñu père nga lool moom bu ko dugal parce que boo ko waxee tamit mooy lool nit ñi. Ah, mën na am yeneen adversaire ba yeneen yeneen ñaa ngi fi tamit. ay sa fay du rek moo fi nekk. non du Balla kese fi su keroogee moom li nit ñiy wax li nga xam ne moo moom lañ parce que dañ naan bu fekkee dafa daan dañ naan digganteem ak Balla Gaye de mooy mooy mën ndax Balla da koy jël loolu tam Balla lay neex su keroogee Balla yor ci gël gu yëm waaw bu keroogee moom lañ naan yaay choisir Balla yaay choisir ndax Balla moo toll noonu ci làmb actuellement yaa ngi dégg mais loolu lépp nag kii mooy daan wala kële du daan ak nangam si kàttanu yàlla daal Baye Ndiaye def na li ko war amateurs yi ñu ngi xaar Aïssa Faye mu ngi yor xalimam di bind taalaak yàgg ngay film Babacar a ngi reporté yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba le tris ñu fekk lépp te tal ko ñu xool fu ñuy mujj ñoom ñaar ah. amin Babacar ñu daal dem si li nga xam ne mooy combat royal bi kii di Lamine Samba tamit génn daal si wax xalaatam ne moom daal eh, loo xam ne ni lu ne mun na cee xew parce que combat bi fu mu toll nii densité beeg tension beeg lépp a ngi ci biir te fi ñu jëm moom mooy loolu le 28 moom moom nee na combat journée boo xam ne la daal mën nañ su xaar lu nekk waaw loolu moom am na parce que tamit euh, li ma wax rek bërki démb euh, suñu grand Lamine Samba ñu koy nuyu encore une euh, ko félicité ci maalaw door boobu nga xam ne nii jox nañ ko ko comme meilleur reporter fële ca Thiès mu war a jëli trophée bi le treize loolu tamit fierté lay doon ci ñun mbégte ndax suñu grand la te itam mu ngi ñuy yaatal parce que fu mu dajee ak ñun vraiment dañuy jox suñu cër jox ñu micro jox ñu sax liggéey bi nañu liggéey leen loolu defe naa ku sa xol yaatuwul mënoo ko kon moom defe naa dara jomb ko grand maa lay nuyu di leen loolu Lamine wax nag ah, gis ñun ci ay waxanteeg ay jàppal bàyyi mooy woon ne combat boobu tension moom am na ci waaw li ma leen waxoon démb nag laa leen di waxaat rek tension bi lu mu rëy rëy rëy nañ ko jéem a cadre yemale ko ci cadre sport xam ne ay sport la ñuy def sport nag li ci am mooy défaite match nul ak vainqueur le sursis ku yàlla jox ndam li ñu xam ne noonu la parce que Modou Lo daanoon na Eumeu seen bu Eumeu seen daanaatee Modou loo lool jombul Eumeu Sène ndax Eumeu seen ku mu daan ci lam jomb ko ndax liggéey na ko te mbër la te waada la macha allah Modou Lo itam ku mu daan ci lam jomb ko ndax li tax mooy am na jom ji am na fulla ji am na fayda ci liggéey na ko kon na ku ci ne ñaari camp yi ku ne na nga jàppal wax sa mbër ne ko waaye diw mënu daan rek moom dëkkal ko ci nopp nit su ñàkkee yaa ko ko xañ ñi nekk ak Modou Lo nañ ko xamal ne Eumeu Sène mi la jël si te kuy jël si revanche caaxaanul te da koo bëgg a jël ñi ànd ak Modou Lo ñi ànd ak Eumeu nañ ko xamal ne ko day kii dafa jóge ci defet te dalaa daanoon te roi des arènes la soxla bu ko defee ñu cadre ko ci cadre sport mu commencé ci jàmm jeex si jàmm kenn bañ cee gaañu kenn bañ cee déglu la naqari lépp yem parce que Sénégal lañ ne quoi génnuñu Sénégal waaw euh, ka ba tey ci sport la ñuy des dem ci li nga xam ne mooy Nandi Fall ak euh, Colifay 2 Nandi Fall ak Colifay ni nga ko waxee enjeu bi tamit suñu lamb dellu si na si tey muy ñaari mbër yoo xam ne ñaari défaite lañu toog ñu war a dem si beneen combat boo xam ne ku si daan am troisième défaite mu nekk loo xam ne nag du neex ci seen carrière. waaw loolu moom moom waxoon naa la ko démb ku ci daanu moom dina metti trop trop si yow ndax ay xale lañu war a bokk si ku ci ne am nga ñaar def tey sàmbay boole leen pour samedi vraiment ku ci daanu moom dina métti trop ci yow nag sport la daanu du tax nga bàyyi non non parce que defet dafa am loo ci a jàngat li koy teg ay defet mu liggéeyaat ci pour gën continuer parce que tollooguñu sax fu ñu waxee waxee bàyyi lam parce que ñu ci seen buntu àddina pour man quoi ah, ku ci mel ni naan ni moom jot temps yële jotoon na xam le ni combat bu ko ñàkkee moom man nag du ko digal mu bàyyi parce que làmb tax ñu xam ko teraangaam la defet warut a tax ngay bàyyi sport ay satu loolu moom amul fenn binduñu ko fenn xam nga lan waa voilà contre performance day am booy say defe naa teg lante na ay defet loo xam ne est ce que ëpp loon cinq xaw ma six defet euh, waaw ne ne voilà te ñëw daan Siteu daan Diène Kaïré daan ay xale yu ndaw ay ñoom Tidiane Faye mu teglante leen daan leen euh, sportif da ngay gëm ne que yow contre performance bi bu koy jéem a gérer mooy sport Eumeu Sène mi tey c'est le roi des arènes defe naa am na ay difficultés yu métti ci làmb mais pourtant dafa gérer liggéey ba ñëw bokkaat tey mooy actuellement roi des arènes kon làmb noonu la Bombardier jaar na ci loolu Balla Gaye de jaar na ci yaa dégg te ñooñu leen ëpp maxaama ci làmb actuellement ñoom kon loolu war nañ servir ay leçon mais du damay daanu rek am naa ñu dafa damay bàyyi noonu man d'accord ma si loolu ci dem Thiès seet yi ki nga xam ne ni mooy Babacar Diop nekkoon euh, DTR directeur technique régional moom ginnaaw bi Thiès jëlee drapeau bi nag moom nee na daa fas yéene jël place bàyyil ko ki nga xam ne mooy adjoint di Mamadou Ngom. waaw loolu day moom maanaam li ah, dañ koy rafetlu rek parce moom moom lañ toftaloon ci man mu jël sama place continuer liggéey ba kon loolu tamit war na servir ku nekk leçon rek ci fa nga nekk di fa manager wala nga fay jiite wala ñu dénk la fa dara boo demee liggéey ba def fa lañ la doon sant nga xajal keneen mu ñëw itam defe naa loolu mooy tax jëm kanam daal mais li gon daal mooy téppéeral fenn rek toog ne du fi jóge waaw loolu moom wóorul waaw dañuy jógee foofu dem fee nga xam ne ni mooy euh, record seet fekk fa tafaatin moom mu am fa waxtaan bu yaatu ak waa record mu ñëwaat ci li nga xam ne ni mooy saison blanche bi mu def proposition yi mu am ñi nga xam ne ni ay potentiel adversaire am la mel ni Gris Bordeaux Bombardier Balla Gaye euh, combat mag Ama Baldé bi ñu doon dox mais tamit yamu ca dem na ba si ñi nga xam ne ni mun na leen may chance ku si mel ni tam rëg-rëg nee na pourquoi par parce que mbër la champion la bañ na ba tamit ne bu ñu ko joxee gridé sax mun na ko jël parce que tamit jox chance nit la rek. si la si làmb loolu mu wax moom dañ koy rafetlu ah, parce que lu tax mooy làmb la ñuy def sport la ñuy def moom euh, mbër la xëy na man naa am yeneen adversaire yu bokkul ak yooyu waaye nag terewul mu nangul leen li ñu doon parce que bu ne pourquoi pas rëg-rëg maanaam lu tax bëri ak rëg effectivement wax na dëgg rëg actuellement mu ngi ci biir defe naa itam même bu ngeen bëriwul sax warut tere nga nangu nekk moom actuellement mu ngi xale la boo nga xam ne nii bokk na ci biir giri de itam benn defet la am waaw mais terewul moom ku ne xam na ne am na yeneen adversaire ndax koo xam ne ne nga daan ku daan Bombardier yaa ngi dégg Balla Gaye de moo la daan kon yaakaar naa war nga revanche ak Balla Gaye war a may revanche Bombardier moo Gris Bordeaux combat jànq la mais dafa xëy daal ñëw tënk lu bëree bëri tafaatin ah loolu mooy li mu wax tamit waaw ay combat li ko téye li tax bëriwul ren loolu lépp ñëw na ci muy loo xam ne daal lu ama am solo la daal mais encore une fois rek sport moom mayante sens da ci am su làmb waaw dañuy jeexal ak li nga xam ne ni mooy drapeau Abdourahmane Diaw directeur adjoint fii nga xam président li nga xam ne ni mooy ADN mu nekk drapeau bu ñuy xaar le 27 juillet diggante ki nga xam ne mooy nger ak Franc waaw loolu day dañ koy suñu yëf la waaw comme li ma wax sànq rek tonton jaw moom moo la waaw moom suñu lépp la parce que tamit nekk ki nga xam ne ni suñu kilifa la mais kilifa gu neex a nekkal la parce que neex na deret te itam xam nga dana kaaf dana fo dana ree kon du ñu mën a def lu loolu kànji ñu ko ci remercier vraiment di wax ne que tamit bu ko ko tuddee ñun la ko tuddee kon yàlla na yàlla def daal sumb noonu yàlla nañ ci yegg ak jàmm di nuyu tamit di ci profité tamit di nuyu waa Leewtoo yëpp parce que père Diaw moom wala tonton jaw suñu lépp la daal ku baax la macha allah mm. waaw. waaw kon ñu waajal drapeau bi rek comme ni ko borom bëggee xam nga def ko événement bu mag fas yéene taxaw ci bés boobu noonu nga xam ne moom lañ ko tuddee xam naa ni moom promoteur bi si kàttan yàlla xolam dina sedd guy ci ki nga xam ne moom la tuddee boobu drapeau ci loolu la ñuy tàggatoo ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di leen euh, wax rek comme à chaque fois yéen yéen suñu doolee yéen yéen ñuy seetaan yéen ñuy euh, rectifier yéen ñuy encouragé ku su mel ni ñoom Benzema dem ñoom nongo Fall ñoom Amar Gueye Italie Mado euh, ñoom Nogay ñoom Assane Sall Argentine ñoom ñëpp ñu leen di béggee Ousmane Diop. Mamadou Kaolack Diallo xam nga parfois rek ñeen ñëpp yéen ñëpp rek benn ngeen ci ñun moo tax lim bi duñ ci sawar noonu e xam ne doo juumee rek rek mais ku mel ni Khady Rose Ndiaye gis dem ci commentaire yi dama ko gëj a dégg Khady lu xew mu ngi ba Allemagne maa ngi koy nuyu mbaa am nga jàmm di nuyu tamit ku mel ni Fatma Fall Bergamo Italie xam nga di nuyu ñëpp Awa Diop Touba tamit maa ngi koy nuyu di supporter maanaam di soppe Balla Gaye

à travers Leewtoo TV tuuti yaay Sarr duñ la fàtte ñoom Serigne Diour depuis Italie nuyu nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm balu ñëpp ak Aïcha ba suba ak